salaamaaleykum mbokk auditeurs yi di dalal <laughs> tey euh, kii di euh, sëñ bi euh, Djiby di Sow di secrétaire général syndicat des éleveurs de la nouvelle génération ñu ngi lay nuyu sëñ bi Sow. waaw maa ngi leen fay. am euh, jokkoo gi ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, bés bi ñuy màggal journée du lait fii ci mim réew mar d'Italie parce que kat mën nañoo wax ne am nañu li nga xam ne mooy joxe meew mi bés bi mm-hmm. ñu di ko màggal tey déjà nan nga ko jàngatee. waaw bis bu ñuy màggal soow ci àddina bi. Mm-hmm. bis bu am solo ndax soow dafa am solo ci lu am bakkan surtout doomu aadama mhm. ndax soow rek mooy liga nga xam ne moom moo am cent pour cent vitamine meew mhm. kon euh, soow am na importance lu nga xam ne cent pour cent vitamine dafa am solo ci dundin doomu aadama mhm. kon bis bi am na solo li may jikk wax rek euh, ci journée du lait bisu soow tey bi du lait waaw meew mooy euh, chaque année dañ koy def ci àddina bi mm-hmm. mais li ñuy gëna a constat chaque année dañ koy def ci Sénégal ci biir Dakar mm-hmm. waaye ñu ngi su premièrement journée de lait bi euh, bëgg nañu trop ñu koy defi ci biir fi nga xam ne foofu la éleveurs nekk. pourtant daan nañ ko fa def parce man am na ay jamono yu ma fàttaliku ñu def ko Ziguinchor Kolda sax dafa mel ni. waaw mais euh, waxuma defuñ ko foofu de uh-huh. dégg nga waaye waxuma defuñ ko foofu de uh-huh. waaye même euh, xam nga xam nga élevage am na journée nationale de l'élevage waaw waaw waaw chaque année ñu ngi koy def ci biir àll bi uh-huh. daaw def nañ ko daara jolof dëgg la du ñu ngi wax ñu ngi nañ ko nañ ñu ngi koy def gaa mais bëgg nañ ñu gën def ci àll bi pour éleveurs yi nga xam ne ñi ci gën a majorité ci àll bi lañ nekk mm-hmm. pour ñoom itam ñu mun a gis seen bopp ci journée lee bi mm-hmm. mun indi seen xalaat mun a fekke mm-hmm. waxuñ bu ñu ko def ci biir biir urbaine waaye dañoo soit ñu def ko ci biir monde rural bi nga xam ne foofu la éleveurs yi nga xam ne ñoom la gën a soxal ñoom ñoo gën a produit foofu lañ nekk. Euh, donc ça veut que gisagu leen seen bopp bu baax a baax ci màggalu bés bi. non xam nga euh, waxuñu gisuñ suñu bopp mais dama la wax. on souhaiterait nañ ko def ci dans la zone de l' Opatra ci maanaam fi nga xam ne foofu la éleveur monde rural bi ñu lañ nekk. loolu ñu ngi ko ci suwaat balaa ma dugg ci affaire journée bi nga wax. bu loolu weesee. waaw euh, journée de lait bi am na solo trop. waaye ñu wax pour. mu gën a am solo ndax tey boo xoolee tey lu mot soixante milliards Sénégal mu koy jël di jëndi ay lin am poudre bitim réew. di ko jéggaane. di ko jéggaane. kon war na réew mi governement bi ñëpp gën a organiser. bi nga xam ne soixante milliards yooyu danañ ko contribuer ci ci réew mi. Mhm. éleveurs ñu mun a indi soow bu doy ci réew mi loolu nag laaj na organisation laaj na waxtaan laaj na wàcc sur le terrain rencontrer les éleveurs kenn ku ne fi nga nekk mm-hmm. Mm-hmm. ki nga xam ne moo ngi nekk ci côté urbain li kenn ku ne fi nga nekk li nga soxla ñu jàppaleel soxla ñu la pour nga mun indi soow mm-hmm. ñu ñu focaliser ñu jàppale la ci lool exemple bu dee éleveurs yi nekk autour des urbains ñoom insémination la ñu soxla nañu defal éleveurs yooyu ñu nekk ci autour de ville urbaine insémination ñu mun a indi contribution ci lee bi ci réew mi mhm. mais éleveurs yi nekk ci àll bi nga xam ne ñoom bu dee ñoom dañu soxla ñu jox leen eh, ñu jëndal leen ay kuy ñu dugal ko seen gétt wala ñu jox leen xaalis ñu jëndal seen bopp kuy ci biir àll bi ñu dugal ko ci gétt bi mhm. pour ñu mun a jur eh, ay seen naga mun a changé mhm. ñu mun indi soow kenn ku ne daal li nga dund li nga soxla ñu seet nan la lay jàppale ba loolu am loolu am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu danañu jàppale kenn ku ne fi nga munee ak fi nga buggee fi nga yaakaar bu ñu jàppale foofu dangay mën a indi contribution ci lee ci biir réew mi dañuy mën a kase am mbalongo bi nga xam ne dañ koy jënd bitim réew eh, soixante milliards ci sow bi ñu a lool contribuer si biir bañ génn réew mi. et justement tey jii boo doon teg dara si loxoom euh, comme ay proposition loo koy jox bu weesoo li nga digle ne si zone urbaine bi insémination euh, ci zone rural bi euh, tey même bu dee ay kuy di ngeen ko soxla mais tey ci wàllum industrialisation ak transformation lan moo ci des. xam nga kenn ku ne. xam nga wolof Njaay mu ne kenn ku ne li mu yor loolu lay demee mars. ki nekk ci wetu ville périurbaine. Mhm. nga xam ne moo moom soxla na insémination mhm. jege na courant xam nga kooku buñ koy jàppalee ci matériel transformation électricité bu nga xam ne courant moo koy fonctionner mhm. kooku dana ko a utiliser nañu jàppale kooku mais ki nga xam ne mu ngi mu ngi ci monde bi mhm. te foofu la éleveur a bari nekk foofu jigéen éleveur yi a bari nekk ñooñu nga xam ne ñoom jegewuñu courant mhm. te ñoom ay kuy lañ soxla wala ñu jàppale ñu jëndal leen wala ñu jox leen ñu jëndat seen biir seen seen diggante ci àll bi ñu pro mën a am nag yu production ñoo xam nga ne courant bariwul foofu mhm. mais ñooñu itam ne mun nañ leen jàppale ci matériel bi xam ne day ànd ay tank solaire mhm. nga xam ne kenn ku ne toll li ngay def foofu lañ lay jàppale parce que mënuñu euh,

ci industrialisation ba xam ne dafa toll ci seen mën-mën dafa toll ci seen am-am ñu former leen lool ba nga xam ne ñoom danañ ko transformer danañ ko defar bi nga xam ne day nekk combatif ci marché bi bu booba soow bi nit kenn ku ne dana gis boppam ci liggéey bi nga xam ne war nañ ko def kenn ku ne dana mën a contribuer fi nga xam ne lool mën a def ñu jàppale leen ci am dundu jur bu jot ñu jàppale leen ci am ay petit euh, mini fabrication de l'aliment de bétail maire yi ak collectivités territoriales yi jàppale leen jigéen ñi ñu am seen ay ay suuf mhm. ñu mun a def seen ay culture fourragère mhm. mun a transformer seen ay soow donc mhm. loolu kenn ku ne daal fi nga toll nguur gi def la war a jàppale ba nga xam ne li nga yor ak fi nga toll ba loolu mun a taxaw mu nekk combatif nga mun a mu ur jëgg ñu mun a arrêté jéggaane bi kon tey daal loolu rek moo des pour que Sénégal mën a mënal boppam ci wàllum meew waaw loolu moo ngi si mais leneen li xam nga boo gisee nawet ñu ne la dañuy tuur soow parce que nawet dafay bari ndox bu ndox bare dafay bari ñax uh-huh. kon li nawet bare ndox bare bare ñax uh-huh. bu ñu fekkee be noor bi bare noon ndox bare noon ñax uh-huh. kon soow mi dana nekk toute l'année toute la ci at bi dana soow mi dana am Hmm. loolu nag li koy indi nguur gi mu ngi def saga def na ay jéego yu bare bare bare def na ay forage yu bare hmm. mais li koy indi mooy nguur gi gën a encore def ay forage gën a jegere forage yi gën a organiser forage gën a gën a yokk ndox hmm. gën a yokk ndox mi ci àll bi gën a yokk jàppale éleveur ñu am seen culture foragère li ñuy ame ndox bu bari nawet yàlla mi tow ndox bu bari am ñax bu bari am ñu fekkee bi ñu defar ay programme yoo xam ne ay projet phare long terme financement long terme yoo xam ne dina munu tax nit yi éleveurs yi am dund jur yu doy mhm. am ndox bu doy bu boobaa soow bi dana doy yéen ñi éleveurs yi est-ce que da ngeen di jot liggéey ak industrie transformation de lait yi fi nekk yi nga xam ne tey ñoom ñooy jaay lait en poudre bi euh, ngir ngeen gën a liggéey ndax taxaw nañ leen en tant que secteur privé ci ka euh, ci ci ci anam googule waaw xam nga ku nga xam ne dafa am lu muy liggéey hmm. am na ay méccam yu muy def ba yàgg mu dugal ci beneen mécc boo xam ne yow yaa ko moom hmm. kooku nu muy doxalee méccam boobu noonu lay def parce que industrie li ngay wax mm-hmm. yu ci gën a bari ci côté ville urbaine lañ nekk um. or que éleveur Sénégal mën nga wax que soixante quinze wala quatre vingt quinze pour cent éleveurs yi nekkuñ ci wet ville urbaine kon éleveurs yi pour ñu mën a jox ko ko ñooñu ba ñu mun a liggéey ak ñoom du du lu yomb mm-hmm. loolu moo tax industriel yi ñoom nan lañ ci def bañ seew loolu moo tax industriel boo gis même bu nekk ci zone de l' gën a jege zone de élevage bi mm-hmm. dafa am partenaire bitim réew bu yor lait en poudre bu nga xam ne moom lay moom lay moom lay collaborer donc dafay dolli maanaam dafay léeg-léeg mm. day jël soow bi local bi tuuti mm. mais li ci gën a bari mu ngi def le en poudre mm-hmm. loolu nag lu koy lu koy lu koy lu koy dindi mm-hmm. muy fekke be am ay mini-literie petit mini-literie dans tous les villages dans tous les zones piliers mm. nga jàppale éleveurs yi kenn ku ne du du rek Issinso wala Porbandia wala industrialisation bu mag déedéet ay yu ndaw ndaw petit petit ni la ñuy war a def ci monde bi mhm. ci forage yi ci ville eh, monde rural yi ci village eh, pluriclé yi mhm. kenn ku ne daal am fu mu yëng jigéen ñi nga xam ne dañ yor soow mhm. di ko transformé foofu di ko jaay ay bidon vingt litres nawet eh, trois cent wala di jox nag yi di jaay ay diw ñor ñoom seen bopp fi ñu toll ñu mën a leen ci matériel ak ci industriel ak ci mini yu ndaw yu toll na ci seen kattan yu toll na ci li nga xam ne loolu la ñu produit ñu former leen ñu jàngal leen même bu dee ay langue locale jàngal leen transformation jàngal leen industrialisation jàngal leen ko ñoom seen bopp ñu nekk ay opérateurs yu ndaw mm-hmm, mm-hmm. ay entreprise yu ndaw mm-hmm. yu nga xam ne rural la yoo xam ne dañ koy defar bu booba ñu am ay centre tàng euh, centre collecte lait yu mag ñu nga xam ne dañ collecte foofu lait yi di ko defar di ko ba pare bu desee les industriels di déplacé di dem di jindi foofu. Hmm. mais bu ñu focaliser ci industrie ñi nga xam ne dañu def industrialisation di ñoom au tour côté euh, goudron nekk wala nekk ci côté ville urbaine di éleveurs yi ñu ngi ci zone périphérique yi. Hmm. bu boobaa affaire bi ñoom bu ñu duñ ci sonn trop parce que bénéfice bi la ñuy xool lool moo tax kenn ku ne dafa am ku yor en bitim réew nga xam ne industriel bitim réew bu yor lait am poudre. Hmm. di def am ak moom convention di def lait en poudre di wax soow local lay def mais di lait en poudre lay def. Euh, sëñ bi Sow ñu wax ci xar yi tabaski baa ngi jip euh, hmm. ndax euh, tey ji mën nañoo am yaakaar xar doy ci ci ci ci tabaski bi. waaw xam nga tabaski dafa nekk ci. dafa bokk ci ponk yu am importance ci réew mi ponk yu nga xam ne dafay contribuer économiquement ci biir but national lu am importance dëgg la ci dundin doomu aadam mm-hmm. boolaa dugga fa ci affaire lee war nañ def collecte les locale hmm. porte à porte pluriculer les zone pluriculées ñu def collecte les locales pendant hivernage ak noor yëpp ñu xam ñaata lañu am ci àll bi soow local hmm. porte par amoo par amoo hmm. mais pendant après hivernage ñu def collecte les locales ñu xam exactement ñaata la ñu am soow nawet ci biir monde rural bi exactement ñaata la am soow pendant noor ci biir monde rural bi Mm-hmm. mais ñu def recensement national septel exactement xam ñaata jur lañ yor mm-hmm. beneen bi li nga wax ci affaire tabaski daf am mm-hmm. solo ci biir Sénégal ponk bu gën a am solo parce que majorité sénégalais c'est des musulmans kon ponk bu xam ne bo am solo ci réew mi la moo tax politique bi ci réew réew gouvernement bi def war naka gën a yaatal mu ngi liggéey ga ak éleveurs yi mais li ñuy jëkk wax rek mooy Euh, les éleveurs. Mhm. ñi nga xam ne ak opérateurs yi nga xam ne dañuy jaay jur. Mhm. Euh, nañu fekke be sénégalais bu ne nañu xar seen tànk tuubéy def kemt lay kattan li gën a am importance mooy sénégalais bu ne. Mhm. bi nga yor nga am xar bu toll na ci bourse boobu nañu fekke be sénégalais bu ne li mu soxla ci toll na poosam bis bi parce que benn bis la. nañu fekke be bis boobu sénégalais def am ay njaboot dama ay xale dafa yor bégal ay doomam dafa dem nañu fekke ba Sénégalais yi am xar kenn ku ne am xar bu toll na ci poosam. Mhm. ci njëg li nekk ci poosam. dégg nga loolu am importance am. Mhm. mais ne léeg-léeg itam ne éleveurs yi nga xam ne ñoom itam ne dañuy dañuy produit. Mhm. dañuy embauche dañuy yar dañuy yafal dañuy jënd ay aliments dañuy pikir jur yi dañuy nandal dañuy fay sàmmkat. ci la ñuy faju ci la ñuy dund ci faj seen doom ci la ñuy seen jabar ci la ñuy seen doom ci demee docteur dinañ defee rek ñoom itam ne ci la ñu dund mhm. kon lii pulaar a wax euh, woto goolo sooy mhm. woto ɓeddugal sooy maanaam mburu wëllu bi wëllu bi mbumu sooy mhm. waaye këll bi itam dina am dara kon nañu fekke bee ñëpp kenn ku ne fi nga féete yow itam ne nga gis sa bopp ci ci ci ci tabaski waaye nguur gi moo ngi def ay jéeg yu bari eh. loolu nag li koy indi mooy am ay financement long terme nañu financer ci production parce que boo boo financer ci jëndum karum tabaski rek mhm. bu ñu reyee xar yi ba jeex rek li nga financé woon jeex na jeex na waay waaye boo financer production mhm. danañu produit lu bare bare bare bare bu leen fàtti nag Sénégal bare na jur mhm, parce que bu ñu organiser Sénégal lii gën ni ci biir Sénégal xar bu ñu ko organiser bu ñu jàppale éleveurs yi jàppale ñëpp ñëpp ci li ñuy dolli jéggaani bitim réew du bare parce que sénégalais dafa mun lekk yàpp gam yi eh, cant yi ñetti guddi yi ñeenti guddi guddi yi jóge makka yi eh, màggal yi eh, meeting yi ngénte yi yëpp jur la ñu rey mm-hmm. kon yooyu yëpp vingt quatre heures sur vingt quatre heures di ñuy rey jur mm-hmm. waaye nax bu ñu Guinée organisé Guinée financé sur production financé long terme mm-hmm. financé tabaski opération mu baaxul dangay ngay production organiser production jàppale leen long terme ñu jur yi mun a jur ñu mun a am jur yu bari ñu mun a contrôle bi mun a maanaam jox sénégalais parce que li ñuy lu ñuy wax loolu la ñu indi ci biir ville urbaine yi ci marché yi mm-hmm. waaye bu leen fàtti sénégalais bu ne dafay tabaski man mi wax yaa damay tabaski mm-hmm. mun na am mun naa la waxal suñ kër chaque année quinze mouton la ñu tabax mhm. ci kër gi am na jigéen parce que dañuy wax ku mun na def jigéen yi sax seen seen jëkkër day rey mais ñoom itam dañu rey waaye dañu compte li nga xam ne day dem ci marché yi mhm. loolu la ñuy identifier loolu la li ñuy lees rey ci kër yi ak ci kër yi ëpp na yi foog bokkul ak yi nga xam ne day dem ci marché waaye nañu financé long terme loolu moo tax nag mhm. FOSCAB ak ay ak ay mutuelle ñooy gën a financer euh, élevage. mais dañuy wax na ñu soit nguur gi banque yi banque yi nañu dugg ci financement production des animaux pour Sénégal mun a am xar yu doy du xar yu doy rek pour ñu mun a am soow bu doy. Mhm. ñu am yaq bu doy. Mhm. mais en même temps itam bu tabaski jotee ñu am xar tabaski bu doy. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Djiby Amady Sow ngay secrétaire général syndicat des éleveurs de la nouvelle génération. ok merci jërëjëf.